Euh, ndax daf la sosal mu ni hmm. euh, nga ni ba nga yóbboon ko cour suprême ndax ñu magistrat yi bu ñu warlee waree atte euh, dafay wuteeg nit ñi atte ñeneen ñi hmm. nga dem cour suprême ne li nga ni Téliko daf laa sosal duñ ko ko ci toppee dara ndax li nga wax ni moom la ñuy clamé gisuñ ci lu yenu maanaa lu tax ñu war koo atte ci loolu mu am non lieu procureur parquet bi parquet général bi def appel ci atte bu njëkk bi tey yéen a nga ci woon Euh, ndax euh, euh, Téliko gannaaw ba njëkkee wax ci moom ne ci mbirum issen Habré gi ci dem wajaase càdd ak ñëw am na xaalis bu mu lekk te waru ko woon lekk mu yóbbu la tribunal waaye tribunal daan la foofu yow nga wëlbatiku porte plainte ndax nee nga daf la sosol ni ay viol ak ay escroquerie ak ñoom seen bala ñoo soriwaat ci loolu dañu bëggoon xam. Euh, lu ngeen jëlee tey euh, cour suprême ci seen appel boobu atte nañ koom atte wuñ ko. waaw euh, li ci xew ci mbir moomu moo di que tey demoon nañu cour suprême ndaxte man ma porté woon plainte Souleymane Téliko dafa dikk tribunal bi nga xam ne moom moo ma yóbboo tribunal bi ñuy atte mu am kàddu ko yëkkati kàddu yooyu nii damaa jàpp di nga kàddu yu garaaw la te ku ko dégg. di nga def jàpp kàddu yu garaaw la mu taxaw mu ni ma jàmbal kat ba mu nekkee tribunal dañ koo toppoon ci escroquerie ak viol lu mel noonu bu ñu ko yëkkatee. viol sur mineur sax. viol sur mineur sax loolu bu mel noonu bu ñu ko yëkkatee muy wax ja nga xam ne wax ju rëy la wax ju ñaaw la te wax ja nga xam ni que ku nekk da am ay nawle. war naa leer te nag ak lu mbante su lu kilifa la ci réew mi am na cër bu mu fi am bu ab ma ab magistrat la kon bu ab magistrat yëkkati kàddu mel na day mel day lu day nuru dëgg. kon nag bu fekkee loolu am na te man mi nga xam ne may ndey bil gi xam naa loolu ay waxi kàcc la kon war naa ko topp ba mu leeral ko ba xam sénégalais war nañoo xam ba xam li mu wax dëgg la am du dëgg moo tax ma ni ko dama koy topp te dama ko bàyyi benn yoon loolu moo tax ma ko plainte yóbbu ko ko njëkk a ah? euh, dañuy wax ñaari mbir. xam nga danga ne yaa ko njëkk a tooñ. dama bind article. Euh, loolu mën nañ ci dellusi ak noo ko bëggee mais li nga ma laaj dinaa la ci tontu ba pare. bi nga xamee dem nañu tribunal ma porte plainte. plainte booy koy def ak magistra dafa am nu nga xam ne ñu ko sart tërale mm-hmm. da wut da ngay bind ministre de la justice jox ko élément yi tax ngeen da ngay porte plainte ministre de la justice ak waa cabinet waa inspection générale euh, enfin waa ministère de la justice ak i conseiller ak euh, direction des affaires criminelles et des grâces yooyu saytu ko ba jàpp que li nga wax nii kat am na ay firnde yoo indi ñu jox la autorisation dina nga topp kii boo koy topp dangay dem cour suprême mooy kër ga gën a kawe ci tribunal ma bind cour suprême jël sama dossier xool ko daal di ah dossier bi il faut ñu saytu ko def benn commission ba nga xam ne da koo war a saytu mu nekk ñetti magistrat ñu jox leen dossier bi leen seet leen ko indi sama ay éléments de preuve procureur général daal di xool dossier bi daal di nekk bi dañ ko topp ñu woo ma laaj ma ma indi sama ay tontu indi firndeel li tax may porter plainte ak fan laa ko teg ñu déglu ma ma dem ñu toog ab diir ñu ne ñoom dossier bi kër dañ koy tëj. dootuñu ci continuer Souleymane ko mosut a ñëw mosuñu ko entendre mosuñu ko inculpé ci dossier boobu. xëy na yoon noonu la ko tëralee itam. non non yoon tëralu ko noonu justement moo yoon tëralu ko noonu. moo tax moo tax xam nga ba nga xamee ne loolu am na ci ñoom ngi def ordonnance ni kat dootuñu topp dossier bi man yëguma ko woon sax ah presse bi laa ko dégg. ndekete procureur général ba mu gisee loolu dañuy ah lii mais lii mënut a nekk. journal Les Échos moo ko faram-fàcce journal euh, procureur général ne lii mënut a nekk daal def appel man ma ko déggee en tant que justiciable ma woote tribunal lan moo xew ñu ne ma non dañu def ordonnance ma bind lettre nañ ma ko notifié ba léegi ba wax ji ma wax kenn notifié wu ma ko ba léegi jotu ma man mi nga xam ne maa porté indi yoon mbir mi yoon kenn notifié wu ma décision liggéeyu liggéeyu greffier bi la. pour non non moom mooy jox décision. magistrat bi mooy def décision. magistrat bi mooy ordonné au greffier de de faire des actes j'étais greffier. donc kon bi loolu xewee euh, tey ñu ooñu parce que procureur général moo def appel ci décision boobu procureur général dafa jàpp ni que li ñu def nii du noonu bi ñu toogee xam nga dossier bu nekk tribunal la waruma ca dugg ci détails yi mais procureur général dafa taxaw ni leen dossier bu ñu ubbi enquête musta am bu demee nii pour l'honneur de la justice dañ ko war a leeral. ñépp di dégg pour l'honneur de la justice am na nanga xam ne mënuñu koo taxañ taxañee dossier patam patamee ko noonu du demee noonu kon moo tax ma def appel parce que man damaa jàpp ni que ñun magistrat yi war nañoo jox leçon wala juge d'instruction yi nga nekk ci suuf nu ñu war a doxale ma dolli ca man ci xar mi karaw ma ni leen fii la ñu mas a gisee magistrat ba nga xam ne day xëy di liggéey bis bu ko yàlla sàkk muy convoqué ay sénégalais naan leen ñëw leen sama bureau ku ñëwul bureau mu yónnee la sandarma wala alkaati ñu jëli la teg la ci kanamam ñu convoqué ko tribunal mu nàkk ni du ñëw kon loolu defe naa ne que yéen ñii bu ngeen ko nangu war ngeen jàpp ni que li ngeen ko def tegu leen ko ci yoon wala li ngeen ko def kon yemalewu leen Sénégalais yi devant la loi ñu déglu ñu entendre ñu Souleymane Téliko ko ñëwul waaye yóbbu na juróom benn magistrat juróom benn avocat la yónnee tey ñu ñëw ba ñu dikkee dama leen toog leen yéen ñii fii toog ay avocat bu ngeen dee doxal yoon wala tribunal di doxal yoon waru leen fee teew ndax procédure pénale warul leen représenter seen client da ngeen ko war a assister man leen man greffier la bu ma demee tribunal penal suñu procédure penal avocat day assister mais mënut a représenter bu doon procédure civile nag mën ngaa ba yow yebal sa avocat mais bu dee yow la ñuy atte yow yaa war a teew sa avocat yi jàppale la ci lañ lay laaj ak lañ lay doxal man leen kon li ngeen seen teewaay fii warut a nekk ak lu ci mën xew tribunal ne def na délibéré cour suprême daf na délibéré pour le 18 mais ñoo ngi xaar 18 mai nu wànneen di mu njëkki noppam mais loolu mooy li ci am. lan nga bëgg a euh, laam-laamee ci li xew que magistrat yi dañuy jàppal tànk seen naataango.